day wax ci bunt bi wàññi julli yi maanaam julli ya nekkoon ñeenti rakka muy tisbaar takkusaan gee mu julli leen rek ñaari rakka bañ leen a julli ñeent loolu sunna su dëgëral la fañ ko ko digale wàññi ga mooy sunna duñu taamu mu matal boole gi itam maanaam julleendoo yaari julli daañu ko wax léegi ak jàppandal la gu ko yoon may daañu wax nu mu demee day jëkk a wax soriwaayu doxu wàññi nu mu toll ne boo ko dee seet ci ay miil juróom fukk yu manki ñaar lay doon miil nag lu bare bari ci yoon ci la ñuy seete guddaay yi dañ cee wóote waaye waxoon naa léegi ci buntu benn weesu ñaari gëstu yi sëñ Mbàkke bu sa andi woon dama toppoon ba ca gënoon a gudd mooy nga wax ne benn mille war naa tolloog mille huit cent cinquante cinq am na beneen nag bu waxoon ne benn mille day tolloog mille quatre cent quatre-vingt-un kon na ngay def mille huit cent cinquante cinq multiplier quarante huit mu daal lay jox quatre-vingt-neuf mille yu tegal quarante maanaam juróom-ñett fukki kilomètre ak juróom-ñeent yu tegal quarante mètres boo seetee nag mille ci takk-takk bi nga xam ne moo gën a tuuti kon na ngay def mille quatre cent quatre-vingt-un multiplier quarante-huit mu daal lay jox soixante onze kilomètres yu tegal quatre-vingt-huit mètres fa ko sëñ Mbàkke bu sa tuddee nag moom dafa def soixante onze kilomètres yu tegal téeméeri mètre ak ñeent nun nag dañ daan yombal wax yi ni di wax rek soixante douze kilomètres benn yoon lu bari moom ngay dégg ci sunu kaset yi soriwaayu yoon wa daal bu ma tee lim boobu nga dégg moo xam la ngay tukki ci suuf si moo xam la ngay tukki ci ndox mi mbaa sax ngay tukki ci jaww ji mel na ni amutoon ci yee jamono waaye ci la bokk te tukki ba ayut bu ñu ne tukki ba ayut nag mën naa nekk tukki bu war nit ki booroon aji mbaa ngay sàkku ji xam-xam boo xam ne fee nga jëm rek nga ko mën a amee te muy xam-xam bu war ci sa diine dana yóbbaale tukki bu ñu sopp ni ki aj goo xam ne yaa ko coobarewu wala siyaare ji ak sax tukki bu dagan ni ki dem di wuti wërsëg wu lew yooyu yëpp dees na ca wàññi julli yi bu doon nag jëmmi tukki bu araam moom ni ki dem di sàcc wala muy siifi yëfi jàmbur mbaa muy dem bëgg taxaw ci yoon yi di kar nit ñi di nangu seeni alal jëmmi tukki boobu moom dafa araam duñ ko may mu cay wàññi julli su fekkoon ne nag jëmmi tukki ba ci boppam tukki bu ayut la teewut nag ba mu nekkee ci yoon ma ngay def lu aay itam duñ yemale jëmmi tukki ba ci boppam aay ak jëmmi tukki ba ci boppam aayutoon waaye mooy def ci biir lu aay dagam jëmmi tukki bi aayul rek teewul nag ma ngay def lu araam ci biir du tee mu sañ a wàññi bu jëmmi tukki ba araamee nag moom du sañ a wàññi li mu mel dafa sart yoon wa yëpp nga dox ko benn yoon sartuñu nga dox yoon wa yëpp benn yoon waaye nag su fekkee jëmmi tukki bi mat na doxu wàññi waaye daa am foo xam ne fa ngay jaari am fa ñeenti fan yu mat mbaalu ko ëpp door a jàll te sa digganteeg foofu moom matul dox bu wàññi kon ba ba ngay àgg foofa doo sañ a wàññi man nga koo misaale boo jóge woon fii jëm Ndakaaru bëgg a jaar daarul mannaan mbaa cilmaxa am fa ñeenti fan mbaa juróom door a jàll Ndakaaru kon xam nga fa nga jëm mat na doxu wàññi waaye waaye fi ngay njëkk aw te yéene faa sax ñeenti fan mbaa juróom baalu ko ëpp sa digganteeg moom jegewul sax doxu wàññi kon soo bàyyi ko fii ba ba ngay àgg daarul mën naan mbàccil maxa doo wàññi boo àggee daarul mën naan mbàccil maxa itam fan yi nga fay nekk doo wàññi boo fa jógee nag te nara jawali ndakaaru moom da nga wàññi boo fa jógewoon sax tey jawali fu gën a jege ndakaaru waaye mat na distance bi nga déggoon rek ba tey kon da nga wàññi bu ñu nee boo jógee foofa te nara jawali rek jawali googu bul ko jàppee ñu ngi koy waxee ci wolof mel ne kudul jàdd fenn fenn na la wóor ni daal ndegam tukki bi xës na mat doxu wàññi boobu bu fekkee ne am na foo nara jàdd da ngay seet ba xam sa digganteeg foofa mat na doxu wàññi wala matu ko su ko matut moom lañu weesu léegi moom doo wàññi ñu misaale ko nga bàyyi ko daarul mawti jëm ndakaaru te nara jaar daarul mën naan mbaa cilmaxa nar faa am ñeenti fan bu fekkoon nag dangaa jógee daarul mawti jëm Dakar waaye dangaa nar a jaar Thiès wala Tiwaawoon am fa ñeenti fan door a jàll kon moom fii ngay bàyyi ko muy daaru ba ba ngay àgg Thiès wala Tiwaawoon da ngay wàññi boo àggee nag Thiès mbaa Tiwaawoon nga xam ne fa nga yéenee sax ñeenti fan nag ngay matal julli ba ba nga fay bàyyi ko moom daal fa nga nar a jàdd li fi mëru fa am ñeenti fan rek yu mat sëkk sëkk du yàq dara ca wàññi ba yi ñu yees yëpp da ngay bàyyi ko daarul Mawti jëm Dakar bu fekkoon ne daarul mën naan gi wala cilmaxa googu wala feneen fu gën a jege Thiès ni ki farboot mbaa feneen it li nga yéenewoo faa sax ñeenti fan rek ci wàññi ngay nekk ci yoon wi ba àggee foofa it da ngay wàññi rek moom daal nar faa sax ñeenti fan muy indi teqale bi ñu la waxoon léegi bu àggee ci béréb nag yéene faa sax ñeenti fan baalu ko ëpp bañ wax ne léegi doo wàññeeti boo fa jógee nag bëgg a wàññi ko ñibbisi mbaa nga bëgg a jàll feneen dañuy seet nag foofu nga nekk ak fa nga jëm nu mu toll su ma tee rek distance bi nga sañ a wàññi su ko matut doo sañ a wàññi te itam nag luy seet dem beeg dikk bi dañuy seet rek dem bi seet wàññiku ba lu ci nekk di tukki boppam mel ne duñ seet na rek yaa ngi jëm fu mel ne dëkk sàngam sa digganteeg moom mat na juróom fukki kilomètre nga xam ne boo jàppee dem ak dikk muy téeméeri kilomètre déedéet dañuy seet rek dem bi nga xam ne juróom fukki kilomètre la doo sañ a wàññi kenn du boole seet dem bi ak wàññiku bi dem ba rek ab tukki la wàññiku ba ab tukki la bu soriwaayu tukki ba tolloo noonu ci kaw sart yi ñu wax sunna la julli gu doonoon ñeent rakk rek ngay ko julli ñaar dong bañ koo matal loo sawar sawar na nga sàmmoonteeg sunna si mu ëpp tuyaa ba matal ga su ko defee nag julli ga nga xam ne moom nga njëkk a julli ca tukki ba da nga ci yéene ak wàññi ndax mu teqale la nga daan def muy matal ak li nga bëgg a tàmbali muy wàññi soo xasee yéene wàññi benn yoon nag mën ngaa bàyyi noonu rek du aajo nga yeesal yéene ja ci booy julliwaat genn julli lu may nag nga dem ba yàgg nga bàyyi woon wàññi gi kon soo delluwaatee ci wàññi da nga yeesalaat yéene ji lee mu ne nag boo jéggee dëkkuwaay ba mooy bu fekkee da ngaa dëkk ci dëkk bu mag da ngay dem ba weesu lépp dëkk ba nga xam ne amul kër gu la féete ndeyjoor amul gu la féete càmmooñ ca kanam itam amul genn kër gu nekk sa kanam bu amee sax dëkk yu ndaw ndawaan yoo xam ne seen biir dañ ko yëkk ci dëkk bu mag bi nga xam ne ca la ñuy walloo si ca la ñuy defe si yu mel noonu dañ koy far boole ci dëkk bu mag bi nga xam bala ngaa wàññi ngay dem ba weesu dëkk yu ndaw ndawaan yooyu day tàmbalee wax na yi nga xam ne day tax mu bàyyi wàññi gam doon wàññi moom mi tukki bu àggee ci béréb te yéene faa sax ñeenti fan te daldi bàyyee wàññi ba ba mu fay bàyyi ko fa bàyyi ko ñi seet fu mu jëm nag ba xam mat na doxum wàññi wala déet bu nekkoo nit ci tukki boo xam ne matale na sarti wàññi waaye daa dema dem ba romb ci dëkku boppam du sax daa ñibbi ci ab dëkkam waaye dafa romb rek di jàll waaye nag mooy dëkku boppam mbaa mu àgg ci bërëb boo xam ne am na fa soxna soo xam ne yëmul rek ci ñu may ko ko waaye wéet naa ak moom jote naa ak moom bu duggee ci dëkk ba mbaa ci béréb boobee soxnaam nekk nga xam ne romb rek jàll dafa dugg wàcc fa day daal di bàyyi wàññi bu fa jógee ñu xool nag fu mu jëm de sax romboon ci dëkkam boobee di ab dëkkam rek jàll mbaa fa soxnaam nekk mu romb fa rek jàll moom du ko tee di wàññi waaye ndegam romb na fa wàcc fa dugg ca biir nag day daal di bàyyi wàññi ba ba mu fay bàyyikoo bu fa bàyyikoo ñu seet fa mu jëm ba xam matale na sarti wàññi wala mataliwu ko bu tukki bi xësee mat nag doxum wàññi bu nekkoon ba ca yoon wa mu am yéene yi jaar ca dëkk ba mu dëkk wàcc fa door a jàll wala bërëb bu soxnaam nekk mu am yéene yi wàcc fa door a jàll waaye ndegam tukki bi moom mat na doxu wàññi rek kon day wàññi nag ba àgg ci dëkk boobee mbaa foofee soxnaam nekk door a tàmbalee matal yéene gi mu yéene ci yoon wi rek wàcc ca dëkkam boobee mbaa wàcc fa soxnaam soosee du ko tee di wàññi li ma tax xam foofu nag mooy su fekkoon ne dafa jóg ne day tukki te it am na yéeney romb ci dëkk ba nga xam ne fa la dëkk mbaa foo xam ne soxnaam sum wéetal sum joteel nekk na fa am na yéene jaar fa te digganteem ak foofa matul doxug wàññi foofu nag na nga takk ne moom ba ba muy àgg foofa du wàññi bu àggee foofa ba dugg fa it du wàññi dañuy bàyyi ba mu jógee fa rek ndoor a seet ba xam fa mu jëm ndax matale na sarti wàññi wala déet mel ne boo doon tukki jëm kawlax fekk na ngaa nekkoon daarul moot yi rek waaye yaa ngi dëkk tuubaa mbaa tuubaa dëkkoo fa waaye am nga fa soxna soo xam ne jote nga ak moom yëmul rek ci ñu may la ko yem ci kon boo bàyyikoo fii ci daarul moot yi wuti tuubaa diggante bi doo fi wàññi bu àggee dugg ca biir tuubaa itam doo fa sañ a wàññi boo génnee Tuubaa jëm Kawlax nag ngay door a tàmbalee wàññi bul fàtte ne itam waxoon nan ne bu fekkee ne sa tukki bi mat na doxu wàññi mel ne nga bàyyi ko Daarul Muxti jëm Kawlax gi wax léegi waaye am nga yéene yi jaar Tuubaa am fa ñeenti fan door a jàll kon doonte Touba moom du fa nga dëkk amoo fay soxna soo xam ne wéet nga ak moom waaye rek gis nga ne bëgg nga faa jaar am fa ñeenti fan door a jàll kon fii ngay bàyyi ko daarul Muxti ba foofu ci Touba itam doo wàññi ñeenti fan ya ngay sax Touba mbaa lu ko ëpp itam doo wàññi boo fi jógee wuti Kawlax nag ngay door a wàññi kon ci gàttal moom du tukki bi matee soriwaayu doxu wàññi waaye nag am na foo xam ne fa nga njëkk a bëgg a wàcc am fa ñeenti fan door a jàll te boo seetloo fii ngay bàyyi ko foofa matul doxu wàññi doo sañ a wàññi ci booy dem ak boo fa nekkee boo fa jógee nag ngay door a tàmbalee wàññi nga bañ a fàtte itam ne boo wàccee ci dëkk boo xam ne am nga fa soxna waaye soxna sa dañ la ko may dong jotigul ak moom dara mbaa jaar nga ca dëkk ba soxna sa nekk waaye da ngay romb rek moom di jàll wàccoo fa kon ba tey da ngay wàññi rek waaye doo matal su fekkee sa sunna mooy wàññi ndax sa tukki bi matale na sarti wàññi waaye dangaa fekk koo xam ne moom day matal mu jiite la kon na ngay ànd ak moom fekk ko ca matal ga doo am rekk ñaar ràkk di ko xaar ba mottali sëlmal nga door a sëlmal doo am rekk itam ñaar daldi sëlmal ndegam xës nga ànd ak moom mu jiite la te moom day matal rek faaw da nga koy fekk ca matal ga moo tax loolu lu ñu siba sib la dañu koy sib lool ndax yow da ngaa wàcc saw yoon wàññi gañ sunaloon ci yow roy nga roy ci kay matal tax na doo ko sañ a def ba tey sax sib nañu yow ngay matal ba noppi fekk kuy wàññi mu jiite la waaye moom moo xaw a tane ndax kenn ku ci ne day jaar ci aw yoonam ndegam yow da ngay matal waaye ki lay jiite moom day wàññi da ngay ànd ak moom rek bu amee ñaari rakka moom daldi taayu sëlmal yow nga jóg dolliwaat ca ñaar daldi matal nga xam ne kenn wàccu ca aw yoonam moom moo xaw a tane saa yéenee sax ci benn béréb lu mat ñeenti fan rek nga xam ne ñaar fukki julli yu mat sëkk dana ko fa fekk rek day daldi bàyyee wàññi su fekkoon ne it moom yéeni wu fa am ñeenti fan waaye yitte da ko fa tax a ñëw xam na ne moom balaa mat faaw mu am fa ñeenti fan kon mu yéene faa sax ñeenti fan ak mu ñàkk ko faa yéene sax ñooyemoo rek faaw day matal ba bàyyi ko foofa su àggee ci béréb nag di fa toppatoo soxla soo xam ne xamul kañ lay sotti saa yu sottee rek nag moom mu daal di fay jóge waaye xamul kañ lay doon day wàññi rek day mel ne sëñ bi woote ab liggéey foofa sori sori waayu wàññi julli yi te xamuñu liggéey bi nu muy demee ci gaaw wala ci yeex liggéey ba rek moo la fa bàyyi bu jeexee rek nga dal fay jóge waaye xamoo na kañ lay doon te it mën laa doog ne faaw dana mat ñeenti fan kon na ngay wàññi rek loo fa yàgg-yàgg da ngay wàññi julli yi mooy sunna day wax nag boole yaari julli julleendoo leen te fekk na am na ca goo xam ne benn julli nga ko te waxtoom jotagut mbaa yéexe nga ko ba muxtaaram jàll loolu dañ koy mayee ci tukki ci niñ koy bëgg a waxe nga dégg ko yaari julli yu bokkaale waxtu muy tisbaar ak takkusaan ci ak wet ak timis ak gee ci ak wet lañuy def lu mel noonu boole leen julleendoo bi mu wax nag tisbaar daa jot fekk nga nekk ci yoon wi wàcc nag ci ab bërëb te am yéene yi boo xësee waraat moom bala ngaa wàccati jant bi dafa so xam ne kon bu jant bi sooyee day fekk tisbaar takkusaan seen waxtu yépp jeex tàkk-tàkk ndegam tisbaar jot na te yaa ngi ci béréb boobu te yéene boo waraatee bala ngaa wàcc jant bi dafa soo dañ lay may nga julli tisbaar tekki takkusaan fa saasay saasa nga xam takkusaan yaa ngi koy julli xaat te tisbaar moom moo jot takkusaan jotagut loolu tukki bee tax ñu may la ko bu doon timis sa gee it nga wàcc ci ab béréb timis fekk la fa te nga yéene boo yéegaatee bala ngaa wàccaat fajar daa fenk dañ lay may kon nga daal julli timis teg ca gee fa saasay saasa te xam nga ne gee jotagut timis rek moo jot kon nga seetlu ne xindal jiit di jéemu daaneele bayri wa mel na ko ca sartaale nga nekk ci tukki bu la farafar mel ni am looy dab bañ mu raw la loolu ci ab sart loolu am ci ak mu ñàkk ci am ñooyamoo rek du tee nga sañ a boole julli yi noonu ñu wax bu fekkee ne nag bi la tisbaar jotee ci béréb boobee am nga yéene yi wàcc ci muxtaarum takkusaan kon dañ lay wax ne la da ngay julli tisbaar doom fii nga nekk bala ngaa dem takkusaan nag nga bàyyi ba wàcc door ko julli ndax ndegam yow nee nga am nga yéene wàcc ci muxtaarum takkusaan kon amula ngànt ci di ko booleeg tisbaar ngay bàyyi ba wàcc ci waxtoom rek julli ko ci waxtoom bi la tisbaar fekkee ci béréb boobu nag nga wàcc bu amee yéene boo waraatee daal moom bala ngaa wàcc muxtaarum takkusaan day jàll ba nga dugg ca daroori yu takkusaan kon yow takkusaan naroo koo julli ci muxtaaram ndax nee nga gannaaw bu takkusaan yu suuf jotee nga am yéene yi wàcc kon nañ lay may bu la neexee boo jullee tisbaar far ci sësale takkusaan léegi léegi nga xam tukki bi may na la nga julli ko léegi léegi bu la neexee itam bàyyi ba wàcc ci daroor yow moom takkusaan door koo julli loolu nag moo gën ndax ndegam am nga yéene wàcc ci daroor yowam nga bàyyi ba wàcc ci daroor yowam julli ko ca am nga ca jàppandal te moo gën waaye nag bu la neexee itam nga daal di koy boole ak tisbaar léegi léegi bala ngaa dem nga xam ne boo wàccee ci daroor yooyu itam fekk na rek julli woon nga ko su fekkee baatub daroor yoon ji ma wax te laa nar a jaaxal ngay wax rek soo naree wàcc ci gannaaw bu takkusaani suuf jotee bu takkusaani suuf jotee fa la muxtaarum takkusaan yem kon nag bu fekkee gannaaw bu takkusaan yi suuf jotee nga nar a wàcc fii mu nekk nag yaa ngi ci béréb tisbaar jot bu la neexee daal di julli tisbaar teg ca takkusaan fi saasa bu la neexee takkusaan nga yéexe ko ba wàcc ci gannaaw bu takkusaan yi suuf jotee door koo julli doomu weesu woon mooy tisbaar jot fekk la ci béréb mbaa timis jot fekk la ci béréb day wax nag bu fekkee ne ba tisbaar jotee daa fekk nga nekk ci yoon di dem mbaa ba timis jotee fekk nga nekk ci aw yoon di dem ndegam yaa ngi ci yoon yi moom am na jàpp ndal guñ la jàpp ndalal foofu boo doon tukki nekk ci sa warukaay di dem nii nag tisbaar daal di jot su la wóoree ne gannaaw bu takkusaan yi suuf jotee da nga wàcc dañ lay may nga bañ a julli tisbaar bañ a julli takkusaan dem ba wàcc gannaaw bu takkusaan yi suuf jotee daal di julli yaar yépp nga xam ne tisbaar ak takkusaan ku ci ne da nga koo julli ci daroor yoom rek julli woo ca kenn ci moxtaaram loolu ak jàpp ndal la buñ la defal ci tukki bi loolu nag mat naa xam jàppal ne kon boo nekkee ci yoon wi di tukki moo xam sa warukaay bopp nga yor moo xam warukaayu paas maanaam fay paas ci nga nekk bu tisbaar jotee te borom oto bi mën a maye ñu mën a waaj julli loola baax na su ko gàntoo itam waaye jàpp nga ne da nga àgg fa nga jëm gannaaw bu takkusaan suuf jotee rek da nga fa àgg moom mën a julli yaar yépp dañ lay may kon loo ca noonu rek boo wàccee julli yaar yépp muy tisbaar ak takkusaan ñoom ña nekk ci oto bay tukki itam bu fekkee ne ñoo bokk fu ñu jëm te xam nañ ne moom gannaaw bu takkusaan su jotee daañu àgg foofa daldi wàcc mën na ñoo bokk juboo ci yeexee tisbaar ak takkusaan bañ caa julli kenn gannaaw bu takkusaan suuf jotee bu ñu wàccee nag foofee ñuy wàcc ñu daldi julli yaar yépp tisbaar ak takkusaan ñoom ñépp ku ci nekk dañ ko julli ci daroor yoom loolu ak jàpp ndal la gu yoon maye maanaam bu tisbaar jotee fekk yaa ngi ci yoon wi moo xam na ngaa war oto moo xam na ngaa war saxaar moo xam na ngaa war fas mbaa leneen waaye daal tisbaar jot na te yaa ngi ci yoon wi si yéene nag mooy bala ngaa wàcc daal jant bi daa so ba noppi nga door a wàcc mu mel ne kon yow tisbaar mbaa takkusaan baroo cee julli kenn ci waxtoom du ca muxtaar du ca daroor yi loolu moom kenn du la ko may ndax nekk ci yoon rek daal di bëgg bàyyi tisbaar takkusaan doo ci julli kenn kenn ci waxtoom du ca muxtaar du ca daroor yi kenn du la ko may dañ lay wax ne la saye boo boole booleeg melo booleeg melo mooy tisbaar jot na waaye mën ngaa dem rekk ba moxtaarum tisbaar di bëgg a jeex nga daal di wàcc nag julli tisbaar nga xam ne boo noppee takkusaan daal di jot nga daal di koy julli mu mel ne kon da nga leen a boole waaye melo rek moo di boole ndax da ngaa yéexee tisbaar ba ca mujj waxtoom ba nga noppee ci moom takkusaan jot. nga jul takkusaan ci njëlbeenu waxtoom waaye kenn ku ne ma nga ca waxtoom kee daa nekk ca mujj waxtoom kee nekk njëlbeenu waxtoom rek waaye kenn génnu ca waxtoom wañ ko tànnal loolu mooy jam xan suuri yan boole goo xam ne melaw rek moo di boole ndax boole dëgg-dëgg moom da cee am julli guñ yeexe ba muxtaaram jàll mbaa am ca julli guñ julli te muxtaaram ak seegut loolu mooy boole dëgg-dëgg ni nga ko déggee woon ci gannaaw day yeexee tisbaar ba ca mujjug waxtoom mu daldi wàcc gaaw julli ko bu noppee takkusaan jot mu daldi koy gaaw julli ci njëlbeenu waxtoom ba tey nag kuy dem rekk noonu te amul programme ci tukki bi maanaam amul fii lay wàcc ci waxtu sàngam mbaa nàngam lii lañ koy wax mooy julli gu jëkk ga bu waxtoom jotee bu la neexee jàll ci sab dem rek ba waxtoom di bëgg a jeex nga daal di gaaw wàcc julli ko boo noppee gësës ci moom waxtoom jot moom it nga daal di koy julli sësale ca jógaat wéy saw yoon ndegam amu programme rek noonu ngay sañ li mujj wax mooy boole goo xam ne melow rek a dig boole la wax ne yow mi dara dëllu sax tukki woo defoo dara sañ nga ko mel ne yaa ngi fii nga dëkk dara dëllu la tisbaar jot nga bañ a julli fa saasa bàyyi ba takkusaan jege nga daldi gaaw julli tisbaar nga noppee takkusaan jot nga daldi ko cay teg nga xam ne génnewoo kenn muxtaaram dangaa yéexe kee ba ca mujjug muxtaaram teel a julli kee ci njëlbeenu muxtaaram rek loolu yow mi dara dëlut mën nga ko waaye nag tuyaaba ja nga waroon a am boo teeloon a julli ci njëlbeenu waxtu wa moom nga dul am xañ nga sa bopp tuyaaba yi teeloon a julli ci ba waxtu way door a jot ba tisbaar door jot soo ko julli woon ci njëlbeenu waxtoom da nga am tuyaaba yoo xam ne doo ko am fii mu nekk bi nga yeexee tisbaar ba ca mu jug muxtaaram su fekkee nag da ngaa tawat tawat joo xam ne julli gu ne nga waajal ko ci njëlbeenu waxtoom julli ko ca day metti ci yow tax laa def nii ñu wax nag yow da nga ca am nooflaay am ca jàppandal te tey ñu bindal la tuyaaba yi ku teela na julli julli gu jëkk ga ca ba muy door a jot ndax yow ngànt li muy tawat ji moo tax nga def noona ki tukki it ba tey noonu tukki bee tax ñu may ko loolu ki wér nag moom bu ko defee sañ na ko nii waaye ni nga ko waxee rek day ñàkk tuyaaba yi bu teeloon a julli ci njëlbeen waxtu julli gu jëkk ga daa wax ni lii mu la leeralal ci tisbaar ak takkusaan say boo xam ne noonu lay demee ci timis ak gee ndax timis ak gee dañoo bokkaale waxtu ñoom itam man ngaa takk ne kon bu timis jotoon nga nekk ci tukki bi wàcc ci béréb boo xam ne sa yéene mooy boo jógee ba yéegaat bala ngaa wàcc day fekk fajar fenk ba noppi nga door a wàcc kon daal ñu la may boo julee timis nga sësale ci gee fa saasay saasa nga xam ne teel ngaa julli gee te waxtoom jotagut ndax timis rek mooy door a jot su fekkee ne it da nga ne danaa wàcc ci muxtaarum gee maanaam guddi ko defoon ñetti xaaj balaa benn baa jaal danaa wàcc dañ lay wax ne la kon timis dong ngay sañ a julli gee nga bàyyi ko ba wàcc ndax foo waxtu wa ngay wàcc mooy muxtaaram nga julli ko ca kon amu ngant ci di teel a julli gee di ko jiital ndax yow ci muxtaaram waxtu wañ taamu ko ci julli ci nga yéenee wàcc boo nee nag su ma xasee yéegaat moom gannaaw bu muxtaarum gee jàllee lay door a wàcc mel ni nga ne ku defoon guddi gi ñetti xaaj su benn ba jàllee baa dugg ca bu ñaareel ba lay door a wàcc dañ lay wax ne kon li nga yéene mooy nër laa julli gee ci muxtaaram kon nag bu la neexee nga boole ko timis léegi léegi boo julee timis sësale ko ci bu la neexee itam nga bàyyi ba wàcc ci daroori yoom door koo julli nga bàyyi nag ba wàcc ci daroori yoom door koo julli moo gën ndax loolu mooy daroori yoom dëgg-dëgg bu timis jotoon nag fekk yow wàccoo ci benn béréb dangaa nekk ci yoon wi di dem kon bu fekkee dangaa programme ne ci guddi gi ku defoon guddi gi ñetti xaaj daal gannaaw bu xaaj bu njëkk ba jàllee lay door a wàcc waaye boobaa dana wàcc loolu kon da nga ne ci daroori wu gee nga yéenee wàcc kon nañ lay may timis mii nga bañ koo julli gee itam nga jàll jàll rek ba wàcc ci waxtu woowee nga wax te mooy daroor yoom nga daal di boole julli timis ak gee nga xam ne kenn ku ci nanga koo julli ci daroor yoom rek julli woo ci kenn ci muxtaaram loolu jàpp ndal la ci tukki bi kon jàppal ne bu jant bi sooyee nga nekk ci yoon wi dem moo xam ne ngaa war oto mbaa saxaar mbaa fas mbaa leneen jàpp nga ne ku defoon guddi gi ñetti xaaj bu benn ba jàllee ba noppi nag da nga wàcc loola daroor yu gee la dañ lay may kon nga bañ julli timis bañ a julli gee soo wàccee nag daal di boole julli timis ak gee ñoom ñëpp kon ci seen daroor yi nga leen julli boobu timis jotee nag te fekk la nga nekk ci yoon wi dem soo programme woon bala maa wàcc fajar day fenk ba noppi ma door a wàcc dañ lay wax ne la kon duñ la may nga wéy rekk bañ julli timis ak gee ndax li nga wax mooy doo ci julli kenn ci waxtoom loolu kenn du la ko may say boo def lañu waxoon jam xan suuri yen boole goo xam ne melow rekk mooy ak boole waaye ci dëgg-dëgg du boole loolu mooy timis jot na waaye man ngaa dem rek ba muxtaaram di bëgg a jeex gee di bëgg a jot nga daal di wàcc julli timis boo noppee gee jot nga sësale ko ci jóg daal di jàll ci saw yoon nga xam ne kon da ngaa yeexe timis ba ca mujju muxtaaram rek daal di gaaw julli gee itam ci njëlbeenu muxtaaram waaye kenn ku ci ne ci waxtoom rek la nekk loolu melaw yi rek moo di boole waaye ci dëgg-dëgg moom du boole kon liñ jot a wax boo ko bëggee gàttal gàttal goo xam ne da nga ko mën a takk da ngay wax ne sóoree tukki tukki boo xam ne mat na doxu wàññi nga xam ne su sunna mooy wàññi julli yi yaari julli yu bokkaale waxtu te mooy tisbaar ak takkusaan ci wet ak timis ak gee ci wet ba tisbaar du jot di julli gu jëkk ga ndax moo jiw takkusaan wala ba timis du jot ndax moo jiitu gee ba julli gu jëkk di jot benn mu fekk la nga wàcc ci bërëb mbaa mu fekk nga nekk ci yoon wi di dem da ngay njëkk a tomb nag bi mu la fekkee ci bërëb bu la fekkee ci bërëb moom da nga programme ne bala maa wàcc jullit ñaareel gi waxtoom day jàll ba jeex mel ni nga ne bërëb bii maa ngi fi tisbaar jot na li ma jàpp nag mooy su ma xësee yéegaat moom jant bi day sox ba noppi ma door a wàcc daañu la may kon nga julli tisbaar moomu daldi julli takkusaan fa saasay saasa te xam nga ne waxtoom jotagut nga xam ne borom timis ak gee it te ba timis du jot liñ la fekk nga wàcc ci béréb te li nga yéene mooy boo xasee yéegaat daal moom fajar day fenk ba noppi nga door a wàcc dañ lay may kon nga daal di boole timis ak gee fi saasay saasa nga xam ne teel ngaa julli gee xaat te fi ko waxtoom jotawut su fekkoon ne nag da nga ne bu dee tisbaara li mu programme yi mooy bu takkusaan jotee balaa takkusaan yi suufa jot danaa wàcc kon bul fàtte ne tisbaar doom ngay julli bàyyi ba wàcc ci takkusaan door koo julli ndax ndegam ci waxtooñ taamu koo ci julli ca nga yéenee wàcc kon amul ngànt ci teel koo julli xaar ngay bàyyi rek ba wàcc door koo julli moom takkusaan bu doon timis ak gee it boo nee ku def guddi gi ñetti xaaj balaa xaaj bu njëkk bee jeex danaa wàcc loolu laa programme fii nga toll timis jot fa timis doom ngay julli nga bàyyi nag bu wàcc ci waxtu woowee julli gee ndax loolu mooy waxtu gee wa ñu taamu te yow nee nga ca ngay wàcc kon amoo ngàntul di teel a julli gee te waxtoom jotawut bu dee tisbaar rek a jot li nga programme nag mooy gannaaw bu takkusaan suuf jotee kat ngay door a wàcc nga xam ne kon nar laa julli takkusaan ci muxtaaram da nga ko nar a julli ci daroori yoom ndax gannaaw takkusaan suuf nga wax diggante ma jant bi so kon dañ lay tànnaloo bu la neexee boo jullee tisbaar far ca teg takkusaan fa saasay saasa mu gën laa noppal bu la neexee nag nga julli tisbaar kese bàyyi takkusaan nag ba wàcc ci gannaaw takkusaani suuf muy daroori yoom nga door koo julli fekk loolu moo gën nag ndax loolu mooy daroori yoom dëgg-dëgg bu doon timis ak gee it noonu la bu la timis jotee ci béréb te la nga yéene mooy boo xasee jógaat daal moom ku defoon guddi gi ñetti xaaj benn ba day jeex ba nga dugg ci bopp ñaareel ba digganteem ak fajar nga nar a wàcc kon bu la neexee nga julli timis teg ci gee fa saasay saasa la neex itam nga bàyyi ba wàcc ci waxtu woowee nga wax nga xam ne dara réewu gee la nga door a julli gee loolu mooy teqalek bi nga nekkee ci tukki bi wàcc ci béréb julli bu jëkk ga benn mooy tisbaar jote la foofa ci bu fekkee da ngaa jublu tisbaar takkusaan wala boo jubloo timis ak gee timis mooy julli gu jëkk ga fekk la ci béréb booba li ñu wax loolu ñu wax mooy googu teqale nga tomb nag ba ca des mooy julli gu jëkk ga daa fekk ci yoon wi ngay dem ni ki tisbaar fekk ci yoon wi ngay dem mbaa timis jot fekk la ci yoon wi ngay dem da ngay takk ne kon ndegam yaa ngi ci yoon wi dem tisbaar jot na li nga am yéene nag mooy gannaaw takkusaan suuf moom da nga wàcc kon yoon da lay may nga yéexe tisbaar yéexe takkusaan ba wàcc ci gannaaw takkusaani suuf daal leen di julli ñoom ñaar ñëpp nga xam ne kon ku ci ne da nga koo julli ci daroor yi loolu tukki bi moo tax ñu yombalal la ko sañ nga ko bu doon timis ak gee it timis jot fekk la nga nekk ci yoon wi waaye am nga yéene ku def guddi gi ñetti xaaj su benn ba jàllee digganteem ak fajar ca ngay wàcc loola mooy dara réew gee ca nga nar a wàcc kon dañ lay may ngay weexee timis yeexe gee nga xam ne amu ci kenn koo julli ci muxtaaram da ngay dem rek ba wàcc ci waxtu woowee nga wax door leen julli ñoom ñaar ñëpp ñoom ñëpp kon ci daroor yi nga leen julli bi ci des nag moom mooy tisbaar jot nga nekk ci yoon wi te doogu ci ne bala maa wàcc daal moom jant bi day so ba noppi ma door a wàcc mbaa boog timis jot nga nekk ci yoon wi te li nga programme mooy fajar day fenk ba noppi nga door a wàcc loolu lañu waxoon ne boo ko defee doo julli genn julli ci waxtoo ko yàlla rëddal du ca muxtaaram du ca daroor yoom loolu kenn du la ko may da ngay def rek lañ la waxoon boole booleeg melo mooy tisbaar mi jot na mën ngaa dem saw yoon rek bañ a wàcc ba waxtoom ji bëgg a jeex maanaam muxtaaram ji bëgg a jeex nga daal di wàcc julli ko boo sëlmalee takkusaan jot nga far ko ci sësale nga xam ne kon da nga leen sësale ci julli gi waaye ku ca ne ma nga ca waxtoom bu dee timis ak gee it timis jot na mën ngaa bañ a wàcc dem rek ba gee di bëgg a jot nga daal di wàcc julli timis boo noppee gee jot nga daal di ko ci sësale wala mooy booleeg melo xam nga moom ci wax yi nam dafa teqale woon rek tisbaar ak takkusaan noo leen di boolee gannaaw ba mu teg ci ne timis ak gee itam lee ma waxan ci tisbaar takkusaan rek ngay baamuwaat waxaat ko ñoo bokk àtte mu ne la yooyu jamono nag kon ndegam ba mu dee tisbaar takkusaan daa waxan njëlbeenu tisbaar ne kon buy timis ak gee da ngay wax njëlbeenu timis ba tey ba mu dee tisbaar takkusaan daan tudd nar a wàcc ci njëkk takkusaan yi suuf ak nar a wàcc ci gannaaw takkusaan yi suuf fii nag mu nekkoon da ngay wax bu dee timis ak gee soo naree wàcc ci xaaj gu njëkk bi ci guddi gi ci boo defoon guddi gi ñetti xaaj ak boo naree wàcc ci gannaaw bu xaaj boobu jàllee nga xam lee mu ne washafaqu mislu sfiraarin jooju moom mën na laa gëlëmal mën na laa jaaxal ndax ashafaqu day firi shafaq maanaam xong-xong yi des ci sow bi gannaaw bu jant bi sowee te wax ne bu raafee timis jeex na maanaam muxtaaram jeex na gee tàmbalee fa loolu moo tudd shafaq fekk fi mu toll ashafaqu ji moom da ciy jublu ba'da atulus al awal min al layli ba muy tisbaar takkusaan tam da nga daan tudd soxog jant bi ndax fala seen ñaari waxtu yépp yemoon ñoom ñaar tisbaar ak takkusaan kon nag bu dee timis ak gee da ngay tudd fenku fajar ndax fenku fajar fala seen ñaari waxtu yem ñoom ñaar muy timis ak gee foofu la seen yaay waxtu yépp jeexi takk-takk daañu maye ñu boole timis ak gee waaye nag ci jàkka dong lañ koy mayee duñ ko mayee ci biir kër ya wala ci ay bitik ca marché ba ci jàkka rek lañuy mayee bu timis jotee te asamaan si taw nga xam ne ñibbi destiwaat julli gee day xaw a sonle daañu maye ñu far boole julliyaar yépp buñ sëlmalee timis teg ci gee fa saasay saasa daal di ñibbi benn yoon wala boog nga xam ne sax nekkul taw waaye ni asamaan si mel moom su ko masaa mel daana taw kon mën naam muy taw dëgg-dëgg mën naam itam ni asamaan si mel ñu séentu ne dana taw daa ñu maye kon buñ sëlmalee timis teg ci gee fa saasay saasa bu fekkee ne itam tawut séentuwuñ taw waaye daa tawoon ba séet yoon wi ñu aw jëm si jàkka ji lëndëm ba noppi def ban boo xam ne néexut a dox lëndëm gi day aajoo muy lëndëm këriis te mooy ñu toll ca mujj ku weer wa ci guddi yi lëndëm yooyu dañuy sart muy lëndëmu bu mel noonu lëndëmu mujj weer bu yaar yooyu tasee ñu toll ci lëndëmuk mujjug weer te ñu aw jëm ci jàkka ja def ban bu naqaree dox ba tey daañu maye kon ñu boole timis ak gee jul timis teg ca gee fa saasay saasa daal di ñibbi tayee dem di dellu si de bu doon lëndëmu kese de ban amut mbaa muy banu kese de lëndum amut kenn du sañ a boole timis ak gee ni ñuy boolee timis ak gee mooy bu timis jotee dañ koy noddal nañ ko baaxoo noddalee nga xam ne dañ koy xumbal fekkee rajo lañ daan nodde ba tey ci rajo ba lañuy nodde xumbal ko nañ ko daa xumbali daal moom noddu timis bu noddee ba noppi xaar as ndiir daldi taxawal timis te bu ñuy taxawal timis nañ am yéene yi kat dañ koy booleeg gee mi sës ci moom faaw day aajowoo ñu yéene boole gi bu ñu noppee timis daañu noddal gee waaye nodd ga dañ koy suufeel buñ daa nodd ci rajo dañuy bàyyi rajo ba buñ daan yëkkati ca kaw it dañuy dugg ci biir jàkka ja nodd rek nodd goo xam ne du xumb waa jàkk ci rek ñoo koy dégg muy noddu gee ñu daal cay teg nag gee dañuy bañ bi ñu yëkkati noddu gee gi ku julli woon timis xëy na defe ne dañoo jiwoon ci nodd gu jëkk ga timis jotutoon mbaa mu defe ne gee daa jot xaat te fekk ne gee jotut dañ koy bool timis rek moo tax noddu gee gi ñu koy woyofal bu dee rajo ñu bàyyi rajo ba kon noppi nañ timis daal cay teg gee noonu ñu sisaloo nag yi daal di mën a ñibbi seeni kër loolu ak jàpp ndal la ndax dem gi dellu si coono lay doon waaye nag bu kenn defagun wetar wetar moom bala ñu ko mën a def dañuy bàyyi ba muxtaarum gee jot maanaam balaa kenn mën a julli wetar moom day bàyyi ba waxtu gee jot dëgg-dëgg mooy bu shafaq fàddoo xonqoŋ ngi desoon fi jant bi sooyee bu raafee gee jot na boobu la ñuy door a sañ a wetar julli gañ ko julli woon sësile ko ci timis ak jàpp ndal rek la woon dañ daal di gaaw rek ñibbi seeni kër bàyyi nag ba gee jot dëgg-dëgg ñu door a def safa wetar